xol di fàttaliku yàlla ci xam nga am na ci aaya boo xam ne ci mujj wala takun minal gaafilina wala takun minal gaafilina day tegtal ne xafla la ñuy bañ sa xol fàtte yàlla sa xol nag man laa bira ko mbokk jërëjëf boo bañam fàtte am na yoon wu gaaw mooy ne yow yaa ngi am ay xéewal yoo xam ne sël yoo xam ne yàlla la ko defal xam nga damay far di misaal nii dama ko dima sa ci xam bu mag mooy ni lépp loo am da nga war a julli bi dafa war a xam ne yàlla ko ko jox suñ borom lépp lu ñëw ci yow gaa yii daa jaar ci ñoom rek war nga leen a sant man lam yashkurin naasa lam yashkurillah riwaayaat yu bari la ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee waaye ki war a gën a sant mooy ki la yónnee xewal gi mooy suñu borom xewal gu am moo la ko yónnee te nun suñu lépp ay xewal la masalan boo tëddee guddi rek tàmbali boo tëddee guddi da ngay jekkee rek tëdd nes tuut nga yëg ne nekkatoo mu wër la indi woo nelaw yi te nelaw mënta ñàkk ci boo amutoon ay fan doo xam looy nuru da jaxasoo kon kala indi xewal gi mooy suñu borom moy ki ta boré ba ba ba ba li nga ci aajoo doy nga yewat nga gis ne am nga sa sago loolu ci dara xewul gënta mag nelaw yalla. defal nit ki kon bu bay tëdd warna naa yalla yàlla ak abu dar ño bok nak li ne yonent bi day bu ma saa di tëdd day wax ñaanu gatt gi bismika ahya wa amutu sun borom ma ngi tëdd ni waye sama dund ak sama faatu yépp mi ci yow te ci tudd saw tur ak wéetal laag màggal la laay dunde laay faatoo buy tëdd it day tëdd wetu ndijoor lal loxo ndijoor bi teg ci lex bi bu noppee ne allahuma qiniya azabaka yawma tabaasu ibadaka bu tëddee ne yàlla yàlla nag ma fegal sa mbugal ci bés bi ngay dekkal say xam ne nelaw yi kat yàlla ko ko ko ko ko ko kii benn ngi noonu tey boo boo boo yeewoo moo tax yonte bi lépp daa ànd ak zikru fi ne bu ma saa yeewoo day wax ne alhamdulillahi alladi radda ilayya ruuxi yu am solo yonte bi lépp jàng na ko dina wax ne maa ngi sant yàlla saa yu yeewoo day sant yàlla bu yeewoo day wax ne alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amaatana wa ilayhi nushur boo yeewoo dugg ci na maa ngi ko jégal dugg ci wanag wi masalan moom ay teggin nag nit ki suñ fa faj aajo it dañoo bëgg noonu ñu waxee barab bi ñu faj aajo bala faa dugg na tudd yàlla ndax seytaane dafa bëgg barab bi taq yi seytaane moo ko sobee ñoo dëkk saa boo jékki-jékki ne saraax ci barab bu xam ne barab bu sobe la te tuddoo yàlla aar sa bopp lor mën na la fa fekk ndax mën nga fa fekk seytaane mu dal sa kaw wala mu tiital la wax dañu bëgg nit ki suy dugg ci wan mu san mu tudd bismillah wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal xabaa'is bismillah maa ngi ta maa ngi dugg ci tur yàlla yow sama boon maa ngi ñaan nga musal ma ci seytaane yu góor yi ak saytaane yu jigéen yi. loolu moom lu wanag wi set set. wala nga faa nag doo nekk bàgg ci weesu loolu nag set set moom. wanag moom jëmmi wanag ci waxum rek mooy bérébu bérébu saytaane. Mm-hmm. waaw buñ ko xasee waajal bay lii wanag la. Mm-hmm. bérébu saytaane la foofu la bëgg moom dafay toog di xaar nga xam ne yàgg yàgg soo fekk moom fekk fa sobe. Mm-hmm. foofu lañ bëgg bala nga faa dugg kon nga tudd yàlla. làqutoo ko ñaan yàlla musal la ci seytaane yi nekk ci barab bi mel noonu góor yu jigéen boo xasoon àgg nag fàtte ko bu dugg ci wanag ba moom dootoo ko wax ci salaam bu dee barab bu sobewu waaye nag mën ko wax sam xel teewlu sam xel ñaan yàlla musal la ci seytaane yi fi nekk waaye daal lu nit yàkkamti yàkkamti na fexe bu dugg ci wanag balaa dugg na wax bismillah allahumma inni a'udhu bika min al fi wal xabaith maa ngi ñaan nga musal mu ci seytaane góor yi ak seytaane jigéen loolu bu ko defee yàlla mën na ko musal ba dara du ko fa su ko defee wanag it boo fay dugg bul dara tur yàlla lu mu nekk tàggoo la moom sa jaaro bi bu ci tur yàlla nekkee bind bismillah wala muhammad rasulullah wala yu mel noonu booy dugg wanag génne ko te gën la nga teg ko feneen walla nga sol mbubu mag summi ko euh, summi ko teg ko ci néeba wala feneen daal door dugg ci wanag bi waaye daal dañuy bëgg ñu sol ko tur yàlla. boo demee tooke yi nekk sa biir. nga nga nga nga yàlla jàpp ndala la nga génne ko fa ci anam goo xam ni dafa jàpp ni te yooyu bu desoon sa biir bii ay fan yu néew mën ngaa sax faatu ndax dara ndax ay ay ay tooke la ak ay posen yoo xam ne moom ngay génne foofu jàpp ndi gim la jàpp nga koy génne loolu aajo woon a sant yàlla aajo na nga fàttaliku yàlla mi nga xam ne moo la xéwale nga mën a génne lu am na ñoo xam ne fi ne bu ñu bëggee tuur ndox faaw ñu dem hôpital ñu ñu defal leen ay butéel génne ko nga xam ne loolu sonle la xam nga nu koy tuddee am na ñoo xam ne dañuy def ay jalis masalan kon ne xam na ne am na feebar yoo xam ne fii ne toujours da ngay dem hôpital dem mbaagante ñu lay génne ak génn yow na yàlla musal la ci loolu kon war nga fàttali ko yàlla ci loolu moo tax yonte bi masa génn ci lu mel noonu day wax ne alhamdulillahi alladi adhaba anni al adha wa aafaani loolu la daa wax maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo génn ci man lor yi nekkoon sama biir ba pare defal ma jàmm ndox mii nuy naan nii nga xam ne yaa maanaam boo boo faje aajo ba noppi ñëw tiim ndox mi di waaj jàpp ndox da ko miin rek waaye xéewul gën ko màgg mu ne sëñ bi nee woon digal naa leen kenn ci yéen balaa lekk mbaa balaa naan na wax bismillahi almaahi almuzaxsihi dadani wal amraad maa ngi tàmbalee ci turu yàlla mi nga xam ne moo mën a nit lépp luy xeetu tawat ak lépp lu bëgg tàggool ci lu amul njariñ mu itam digal naa leen balaa kenn naan ataaya mbaa kafe na wax alhamdulillahi alladi saqaana xayra sharabin wal ida waqaana sant naa yàlla mi nga xam ne moonu nàndal naan nga gën ci naan yi boole ci fegal nu noon ya yàlla da ko def ci qualité boo xam ne moo dëppook ni nga ko bëggee nga xam ne ni maanaam fëttut ba ëpp comme ay diw loyoxut ba ëpp it ba weesu aajo ji nga da ko def ci qualité boo xam ne te fi ne da ko def ci da la ci jox kante bu bare bare bare bare ba nga xam ne li ci aajo lépp di nga ko am te ndox fi ne ñetti fan boo ko amoon te amoo ndox da kenn du xamante looy nuru boo sanguwut naan moom dama ko jël léem boo ko defal ay fan na faatu kon ndox xéewal a noonu koo xam ne yàlla da ko jàppandal ci sa kanam bari goo ko ba miin goo miin xéewal gi tax na yow doo fàttaliku ne lii xéewal kon kooku war nañ ci sant lekk tey boo tibee ndab li nga gis aw jën fii gis fii da nga puloox gis fii nangam te yooyu ku ci ne fa mu jóge ba agsi bi ci buñ la ko waxoon ay kilomètres yu bay la baykat ba bay ca Indonésie wala fii ceeb ba ñu jëlee ko fële jën bi benn waaye jaar fële ca euh, da jiwaalo napp ko fa muy wër ci gaa yi ba agsi ceew lépp nga tiimandoo ko ci sa palaat maanaam lépp li nit lekk mënta mënta weesu xew ñaari xewal yooyu loo xam ne ci suuf si la ñore wala mu jóge ci jur gi nga xam ne moom lañu yàlla xewale te yooyu yëpp yàlla koy ndi loolu kon boo tiimee ñam war ngaa fàttaliku suñu borom suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax bu sa saa xewlu ba noppi day wax ne alhamdulillahi alladi atamani hada taam wa razaqanihi min gayri xawli minni wala quwa baat yu am solo maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma leel ñam wi te man benn pexe ci leel sama bopp wala kàttan awma ko mu defal ma lépp ma suur yàlla mi ma defal ma suur ni maa ngi koy sant kenn ku ne ci yéen it gannaaw bu lekkee ba noppi mbaa mu naan ba noppi na wax alhamdulillahi almusabbiti almusaxihi albadani wal agrad maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo mën a saxalal nit lu baax la koy jariñ may ko yërug yaram may ko it lu muy bëgg ko yóotu rek muy lu koy amal njariñ mi Eh, loolu lu am solo borom Daaru Muxti mii daana ci teg lu am solo loo xam ne maa ngi ko labir ñëppit bu ma saxelu ba ba wax loolu da ci teg alhamdulillahi alladi jaalani ashtahi wa ajidu fa kam min mustahin laa yajidu wa kam min waajidin laa yastahi baat yu am dawqoo ngi noonu baat yoo xam ni yu yu yu yu yu yu ay caf ko yu bari moo ci daje borom daru moo ko daa wax loolu buñ ci bëggoon waxtaan rek obodiye ku leer moo ci feeñ li ñuy wax salabul ixtiyaar di sëñ bi di ko wax te mooy lool loolu la ca feeñ baax a wax ci baat yooyu kon yooyu it bu ma saa xewlu moom borom dara la ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jàngalelee kon yow boo xewloo itam foofu fat fàttali nga fi yàlla li ma bëgg a mooy nit ki jamono bu ne lu koy fàttali yàlla mi ngi mi ngi mi ngi moom lépp loo def rek bàyyi xel da xam ne lii xéewal la ko jóge suñu borom war nga caa sant sa borom loolu boo ko dëkkee sa xol ne surtout da ngay sopp yàlla danga nga koy bëgg koo xam ne toujours moo lay moo lay defal xéwal yi da nga koy bëgg boo ko bëggee nag dugg nga ci àjjana ji gaa bëgg yàlla bëgg mooy mooy mbir mi bu masaan di génn ci këram day wax ne bismillahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw adilla aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayhi soxna a umu a dañ ko daan dàkkentale toom dëgg-dëgg nag mooy hindu baayam ñu koy dàkkintale abu umayata tem tudd xuzayfatu mu bokkoon ci banu maxzoom soxna si moo nett leen yonante bi bu masaa di génn ci néegam day wax ñaan gii day wax bismillaahi teg ci tawakkaltu xalallah daal dina suñu boroom yàlla nag ma musal ci man ci saa bopp may réer ba wàcc yoon wa nga xam ne moom may tax àgg ci mbir yu kawe yaa kawe mbaa kenn di ma réeral ba di ma wàccee yoon woowu musal ma it ci may tarxiis ba wàcc yoon woowu mbaa kenn di ma tarxiisal ba di ma ko wàccee musal ma itam ci may tooñ kenn mbaa kenn di ma tooñ mbaa may réere kenn ba dal ci kawam mbaa kenn di ma réere ba dal ci saa kaw addis boobu nee nañ la